Mamadou Mbodj Diouf ñu ngi lay nuyu di la dalal si réew mi. Eh, Elisa maa ngi lay dalal man aussi bu baax di nuyu waa réew mi yëpp ak auditeurs réew mi. Mhm, nga bokk ci bureau politique bu parti socialiste euh, coordonné tamit projet bu ñu duppee PAMOD muy projet de modernisation des dara euh, tey ñu dégg ne parti socialiste euh, dina déposer caution ngir waajal local yi wala sax jëm ci local yi ndax li ni mel yaa ngi koy dëggal. waaw loolu damay bëgg xama xama xam leen rek. Euh, euh, ku xam parti socialiste xam ne parti bu organisé la. Mhm. xam ne parti la boo xamante ne ay ci ay charte lay doxee. et que lu ci luñ ci war a def rek day fekk ne charte yi dañ ko tër dañ ko të dañ ko prévoir te noonu lañ ko tëralee woon. Mhm. Euh, suñu parti dafa tàmm donc suñu dem ci élection lépp li nga xamante ne di procédure ñu war ko def dañ koy def indépendamment maintenant que ñu nekk ci coalition wala ñu bañ cee nekk. Mhm. Euh, loolu la naan acte de souveraineté la euh, donc loolu euh, parti bi de da da koy def parce que texte yi loolu la ñu wax. Mm-hmm. mais aussi parti bi da ko war a def parce que base bi muy militants socialistes yi muy 138 coordination yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir Sénégal 14 unions régionales yi nga xam ne ñoom nekk ci biir Sénégal secrétaire général Aminata Mbengue Ndiaye temps yëpp bon ñaari weer yi passé ñoom la doon recevoir. Mm-hmm. bi mu leen recevoir rek camarades yi toog nañ ne ko daal ñun li ñu namm mooy na parti bi déposer une caution et ci loolu foog naa moo tax parti bi euh, décider en plus du fait que acte de souveraineté la déposer caution boobu pour mën a couvrir les listes PS loolu aussi soo déggee euh, ñu koy def mm-hmm. mën nañ jàpp ci suma njàngatu bopp mm-hmm. ak peut-être expérience bi nga xamante ne dund nañ ko ci biir coalition yi nga xam ne mosuñ cee bokk. Mhm. am nga élection locale du élection nationale du élection député wala élection présidentielle. Mhm. élection locale diggante nit la ak waa goxam. dëgg la nit ki nit ki dañ lay wóolu ndax xëy na am na loo fa def am na ay yoo fa joxe comme ba ba mu tax euh, euh, nga euh, xelu nit ñi dal yow. Mhm. wóolu la ou bien mu nekk ne defuloo fa dara wala ràññewuñ la ci ci loo fa def. ñu xam ne yow mii wóoluwuñ la donc ce qui fekk ne foofu euh, c'est une réalité locale te nañ ko jàppee noonu su boobaa maintenant euh, ñu waree dem en coalition il faut que nit ñi toog waxtaan te loolu la partie bi digle ñu waxtaanee nag ñaara mën a am soit dañu mën a am waxtaan jubo auquel quelqua ñu am benn liste benn Bokk Yaakaar su fekkee ne juboo mënu fa am mais ku nekk war nga am possibilité demal sa bopp euh, wala ñi nga mën a déggool ngeen liggéey ensemble pour mën a am confiance su euh, électorat au niveau de la base. Mhm. donc man je pense que suñu caution boobu noonu lañ ko war a jàppee xam ne c'est nag de souveraineté mais aussi euh, c'est une demande forte boo xamante ne euh, base bi moo ko moo ko demandé. Mhm. ndax li donc nañ ko jàppee noonu. ndax li ni mel melul ni euh, da ngeen di sécuriser seen bopp ci yenn euh, gox yi nga xam ne euh, bëggu leen parti socialiste ñàkk ko comme ñu ci mel ni Kaffrine ak yeneen yi nga xam ne tey jii ñoo ngi gis ne guerre de leadership boobu moytul dina posé wu ci local yi. non local moom guerre de leadership mënu cee ñàkk. te foog naa ne ba soo xoolee sax même suñu alliés yi mais lu mel ni APR presque amul gox booy dem. fekk loo fa ñaar ba ñetti nit ñu ne bëgg nañ ay candidat wu APR mhm. waxuma la yeneen ab ah, yeneen yeneen yeneen alliés yi ñun peut suñu suñu suñu parti socialiste comme euh, am na hiérarchie boo xamante ne am na soo duggee ci benn commune euh, soo laajtee kan mooy responsable dañ lay joxe ne diw mooy responsable mhm. diw moomu lépp loo xamante ne euh, mooy responsabilité mooy engagement mooy prérogative ci ci ci management nu parti bi ci gox boobu moom ci ay loxoom lay jaar kooku leer na donc soo bëggee ñëw waxtaan ak euh, nitu PS kooku ngay waxal forcément mais du ci parti yëpp nga mën a am loolu comme que noonu la euh, waxtaan bi day gën a jafeñal waxtaan bi ce qui fait que euh, fondamentalement euh, c'est vrai que parti bi dafa ne na nañu permettre responsable yi ñu mën a waxtaan ci biir coalition yi mais il faut aussi ñu prévoir que ne waxtaan boobu mën na bañ ñu jur dara parce que may joxe benn firnde rek en 2014. su suñu jàppee ne parti socialiste maire socialiste yi ñu am ak euh, président conseil départemental yi yëpp soo ko boolee moo ngi war a nekk ci juróom fukk ak ñeent mais ci juróom fukk ak ñeent yooyu juróom fukk yëpp mën nañ jàpp ne du benn Bokk Yaakaar la ñu doonee maire wala conseil départemental mm-hmm. euh, soit dañu dem seul wala mu nekk na dañu dem ànd ak yeneen parti parce que ci biir bennoo waxtaan nañ wala jéem nañ waxtaan mënuñu déggoo mm-hmm. mënuñu juboo mm-hmm. te comme ñun ñëpp nag benn coalition benn benn njaboot bi la l'essentiel daal mooy le résultat mooy que vraiment ñu mën a contrôler le maximum de collectivités territoriales et su fekkee ne nag ñun suñu texte may na mm-hmm. euh, ñu mën a poser un acte de souveraineté boo xamante ne euh, day doon ñu déposer ab caution man je crois que loolu euh, amul benn lu mu mën amul lenn lu mën yàq ci suñu ànd ci biir benn bokk yaakaar. Mhm. te foog na sax ñenn ñi suñu alliés yi euh, biñ ci àddoo wax nañ ko nee na loolu sax na seen nullement. et je pense que 2014 noonu la woon je ne vois pas pour quelle raison 2022 du demee noonu. mais 2014 pour signaler mais lu loon nii euh, li nga xam ne ñu bëri wane nañu tey euh, seen euh, mbébét ni bëgg nañu jiite benn gox te ngeen ànd ak ñoom depuis 2014 boobu ngay wax ak tey est-ce du pëccëxoo bi tamit moo tax ngeen jël décision bi jël seen i matuwaay. mais mais man li ma la bëgg a xamal. Mhm. mooy mooy candidat yi li ñuy bari bari bari yëpp. Mhm. néew na li nga ci dégg. ay responsable yi socialiste yoo xamante ne annoncé nañ ne dinañ def candidat. waaw parti socialiste. xëy na liggéey liggéey bi ñu liggéey à la base ñoo ngi koy def. Mhm. positionnement bi nga xam ne euh, war nañ ko positionné ñoo ngi koy def mais am nañ mandute bu toll nii euh, jëluñu def déclaration officielle alors que seeni base investir leen parce que il faut ñu comprendre aussi benn affaire. Mhm. comme ñun loo gis rek ci procédure la. balaa ngay investir nit ki mooy investir boppam biir parti socialiste mais base bi maanaam da ngay convoqué camarade bi ci liñ noon commission administrative mooy CA soo convoqué CA bi CA bi moo lay jox mandat mhm. soit nga war a dem négocier ji ak yeneen allié wala mu nekk ne daf la ne directement demal nga doon candidat déposer sa candidat mhm. wala mu ne la demal nga négocier su sottiwul doonal candidat donc ñu noonu la ñuy doxee mhm. te la plupart ñi ñu ne ay candidat lañ wala doon nañ candidat jaar nañ ci euh, résolution wala ci mandat yooyu seen i yi defal leen. Mhm. loolu nag euh, mënuñu ko méngaleeg li nga xam ne moo xew feneen li nga naan pëccoxoo biir parti social pëccoxoo mënu fa am parce du ñuy doxee noonu te je crois que quand même on est assez organisé. Euh, bi leer na xam nañ kii moo jiitu kii moo topp keneen moo ci topp. Mm-hmm. noonu la ñuy doxee. d'accord euh, pëccëxoo bi waxee ma ko ci parti socialiste mais parti socialiste ñi mu àndal euh, APR rawatina nga xam ne benn gox di nga fa dégg fukki candidat ak ñeent tey jii monsieur Mbodj tey donte yaa ngi koy wax mën naa bañ a yàq seen ànd ndax ay local la tey mën nañoo xaarandi tamit position bi ngeen adopté ci local yi ñu gis ko tamit ci yeneen élection yi ñu dëgmal. bon parce que comme du même type élection yi. Mhm. mënuñu mënuñu ne liy xew si rek mooy xew fële parce que c'est c'est différent élection bu nekk ak réalité euh, li ma mën a wax mooy euh, fi mu toll nii ci élection locale lañ nekk. élection locale ni ma ko waxee réalité wu locale la euh, diggante nit la ak waa goxam. Mhm. ñoom ñoo lay jugé donc mënoo jël ay décision yu jógee fële nga ñëw tabb ko Euh, fekk ne du loolu la waa gox ba di dund. Mhm. su boobaa aussi dañ koy jël sànni ko fële rek. li ñu gëm mooy toog waxtaan suñu biir entre responsable à la base. Mhm. ñu tànn suñu déggoo suñu déggoowul ku nekk demal sa bopp mais li ci am solo mooy waa gox bi ñoom ñooy tànn seen responsable su fekkee ne élection législative foofu c'est des élections nationales. Mhm. de même que euh, élection présidentielle. yeneen réalité la te je crois que contexte yi comme day changé eggaguñ ca mënaguñ cee wax lu leer xam naa suñ ci eggee daal ci la ñuy gën a mën àddu ci yooyu. Mhm. wax ci leneen euh, muy mbiru passeport diplomatique yi nga xam ne ñu ngi koy laam-laamee mu am ñaari député yu bokk ci mouvance présidentielle yi nga xam ne euh, ñu ngi leen ci tudd waaye mbir mi euh, ñu bëri jàpp nañ ne dafa yéex contrairement ak dossier yi nga xam ne bu ñu jàppee ne opposant la ni muy gaawee ñoom bi gis nañ ne dafa yéex tey ji ban lecture ngay def ci mbir mi. waaw man li may jàpp foofu rek par li ma mën wax foofu rek ci wàllum gaawaay bi ngay wax noonu. Mhm. il faut que ñu xam aussi euh, procédure bi du procédure ordinaire. Mhm. procédure spéciale la ndax ay député la concerné comme ay député la concerné nag il faut que assemblée euh, nationale ñu saisir leen. Mhm. ñoom ñu prononcé wu ñu àddu ci wàllum immunité diplomatique mooy kiir malaanu kiirlaay bi nga xamante ne moom mooy euh, protéger député yi. Mhm. donc yooyu yëpp daf ci bokk ce qui fait ne ni mu war gaawee mënta gaawee noonu. Mhm. mais man li ma ciy wax rek mooy que ne comme procédure boo xamante ne euh, moo ngi ci yoon. Mhm. wala yoon comment tàmbale na tàmbale na ko. Euh, munuñ cee wax lu bari munuñ cee sori dama jàpp ne rek nit ki moom suñ la jiiñee dara am nga droit défendre te tant condamnation amagul tribunal demul ba yow yaa ne lii yow yaa def lii da nga am li ñu naan présomption d'innocence mhm. donc man dama jàpp ne euh, ces députés la dañ leen war a may euh, seen droit boobu nga xam ne mooy la présomption d'innocence mhm. suñu demee na ba mu wóor ne mu leer ne effectivement liñ leen di jiiñ tribunal condamné na leen wala war nañ leen mën a condamné bon mais man je pense que Sénégal mënul am ñaari citoyen yoo xamante Euh, kii yoon da koy privilégié keneen yoon du ko privilégié loolu amu fi kenn doxalu ko fi kon su fekkee ne ñoom ñoo def yoon dina leen daal su fekkee ne def ñu ne aussi yoon dina leen bàyyi donc foog naa ne loolu daal euh, coow lu bari jaru ko euh, nañu toog suivre yoon def liggéeyam te comme da di loo xamante ne déjà yoon adduna ci foog naa ne maandu ci daal moo moo gën. jeexaleeg PAMOD muy projet bi nga xam ne yaa ngi koy coordonné euh, tey jii atum ren muy année scolaire bu ren lan la ñuy xaarandi ci ay avancées. waaw bon li ma mën a wax rek mooy euh, déjà. ren au mois de juillet passé mm -hmm. chef de l'État son ex son excellence le président Macky Sall inauguré na daara yi fële dans la région de Matam mhm. benn bi di Kanel beneen bi di euh, vraiment en grande pompe macha allah avec euh, tous les acteurs euh, déjà boobu c'est un tournant pour wane ne rek euh, processus bi vraiment enclenché nañ ko à à travers d'abord le projet d'appui à la modernisation des daara bi nga xam ne moom laa yor mais au ak yeneen intervention yi nga xam dañuy ñëw bokk ci ci ci ci processus de modernisation bi liñ ci mën di jàpp daal mooy fi mu toll nii ñoo ngi ci njeextalu première phase projet bi mhm. ci yëg euh, fin décembre incha allah deux mille vingt et un mhm. ce qui fait que li des euh, amatul solo noonu trop mm, te li ci doonoon gàllankoor parce que gàllankoor yi li ci ëpp procédure yi la mhm. mais yi ci ëpp aussi ak entreprise yi la parce que xam nga ne euh, projet bu ci am pàcc boo xamante ne dafa dafa dafa laaleeg wàllum tabax comment suñu entreprise yi seen doole seen kàttan demeewul noonu début bi mën na yomb mais suñ demee ba ci biir rek ba koppar yi xaw a manqué ci seen i côté rek day commencé xaw a sooxe xaw a yéex tuuti mais euh, macha allah mën nañ jàpp ne daal li ëppoon ci daara yi si 64 daara yi tabax nañ leen yeneen yi ñoo ngi leen di terminer te surtout procédure yi nga xam ne moom la ñu ci yooyu lañ nekkoon ndax def ci amoon entreprise yoo xamante ne la ñu waroo woon ak ñun motale wuñ ko woon ba ñu nangu woon marché yi. marché yooyu dénkaat nañ ko yeneen entreprise ba entreprise yooyu tàmbale nañ di liggéey mhm. te yaakaar nañ na fii ak fin d'année bi ah. incha allah li ci ëpp daal ci li desoon dina jeex su boobaa comme daara yi nga xam ne ubbi nañ depuis daaw yooyu aussi danañ mën a ubbi ndongo yi dugg ci jàng ci ci wàllum programme yi nga xamante ne ñun moom lañ tabax mooy le curriculum de daara moderne mhm. ak euh, lépp li nga xamante ne mooy accompagnement ñu warookaak daara traditionnel yi yooyu yëpp ñoo ngi ci te incha allah euh, bëgg nañ boucler fii ak euh, fin deux mille vingt et un incha allah li desoon euh, toll na si ñaata tey jii. waaw mën nañ mën na mën nañ jàpp ne pratiquement suñ ci génnee ñaari marché yi nga xam ne dañ leen résilier woon. parce que mm-hmm. yooyu entreprise yi dañuy doog a tàmbalewaat. Mm-hmm. li des daal xam naa mën nañ jàpp ne ci limu ñeent fukki daara yoo xamante ne jàpp nañ ne li ci liñ ci doon xaar yëpp pratiquement yemb na. Mhm. Euh, daara yi pare nañ yan yi sax de ba mu pareeg léegi ëpp na ñaari at. Euh, équipé nañ leen euh, nee la sànq tàmbali nañ. Mhm. commencé nañ jàngale ci biir daara yooyu. Mhm. yeneen yi nga xamante ne ñoom ñoo ci des pour équipement yi ñoom entreprise yi lépp loo xamante ne waroon wa waroon nañ ko ut comme équipement jënd nañ ko ba tëj ko ci magasin yi. li ñuy xaar mooy li des ci daara yi. pare ñu dugal ci équipement yi xale yi dugg ci mën a jàng comme seen naataango yi nekk ci daara yi nga xamante ne pare nañ déjà. Mamadou Mbodj Diouf jërëjëf. Elisa merci beaucoup maa ngi lay gërëm di la sant.